bul bariloo yi yéeneek mëbët mëbët di teg rek di reewe te yow nanguwa liggéey waaye tamit bul di fuglu foo toll di surveiller xaar di xaar réussite te nanguloo xeex benn yoon nee na xikma waxoon bu yàgg mi sases waxoon na bu yàgg ne eh, bala nga gént naaw di reewe naan damay eh, yéeg ci jaww ji njëkkal a jàng naka la ñuy doxe dox bu jub xocc ba pare xam nga dox moo naturel ci doomu aadama nga ne yow danga ko fay romb dem di jàngi naaw ak a génti naaw te dox bi nga man sax jubagul xocc léeg-léeg nga gis koo xam ne li mu waroon a tal tey mooy lum dunde moom muy reewe yeneeni mbir yoo xam ne yaa nag mbiri àdduna ki matériel yu dul jeex la te mënoon na ko bañ a def Euh, mu ne nag bala ngaa xalaata naaw njëkka la man dox bu jub ba pare daal wax na tamit bul nekk ne damay xaar fii réussite te mooy li ñuy wax ci wolof tekki te xam ne yow jamono yi nga xaar tekki yëngatu woo sax far di foo dara nee it bul bari looy mébét ak a naal di teg dama bëgg bu balaa nangam ma mën a defar nangam dama bëgg wut nangam dama bëgg a am te teew bi ngay wax loolu liggéeyuloo loolu dana xaw a nuroog wax ja Seydina Omar ibn Xattaab waxoon gaaya bu leen fekkee saa buñ jullee rek mu seetlu ne dañuy toog ci buntu jàkka ji ñenn ñi ci biir jàkka ji di waxtaan rek gisu leen ñu xëy baañu gont mu jël di raam rek fekk leen fañ toog rek dóor jóg leen ngeen liggéey jóg leen ndax da ngeen mës a gis asamaan si muy taw wurus tontu bi mooy déedéet kenn mës a gis asamaan si muy taw wurus kon loolu mooy dëgg Euh, nañu nañu góorgóorlu bu baax a baax di sabab lu nag bala ñoo tuumaal yàlla ci dañoo amul nangam ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah